seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang. Bismillah. doon nañ ko seen tuddee di ci am xel ñaar dina ñëw ak du ñëw wadd ñëw na démb <laughs> Wade ñëw na démb aéroport tas tasaaroo ñëpp topp ko yéenekaay bii di La ne ak ñëwam bii triomphal daanaka daal mbooloo mu takku lool ñoo dem ci aéroport gàttandu seen maam ju ñu namoon di kan Maître lay Wade yéenekaay bi di enquete na ñëw na nag ngir xeexam bu mujj yéenekaay bi la Le Quotidien na tàngal na ko jëpp nag. ba mu ñëwee Maître Abdoulaye da ko tàngal jëpp lool mën nañoo wax ne coalition gagnante wattu senegal tàmbali campagne bu jéggi dayoo la def Vox Populi na wàdd def na showam de ci biir kàddoom nag nee na Macky Sall mii <laughs> dina ñam cré yi de cré yi faw mu ñam ko Wade superstar lool ñu yéene bi di laas waaye nag wàdd ba tey jii ku ko waax mu tontu la ku ko saañ mu dëbëj la ko moom amu ci benn xel ñaar nee na bu ko kenn wax mu noppalu ji bu ko kenn wax mu noppalu ji loolu la wax ci xëtu yéenekaay bi di la Tribune te nag ñiy wax wàdd mag la nee na ñooñu ñoo sonn ba lot war a dem noppalu di ñoom loolu la wax ci Vox Populi nee na tànk nag yàlla mi ngi koy may kàttan ak xel day xeex te du arrêté benn yoon loolu la wax ci biir yéenekaay bii di enquête yéenekaay bi l'Observateur ne am na rëq-rëq yu ma gis ci ñëw Ablaye Wade ñu ne ko lan la mu ne oto Ablaye Wade dafa pante aéroport estrade eh, ban defoon ca PDS mu am ba ca maam moomay gaañu gaañu Victor Sadio Diouf ak xaali Gabo wàdd na kokkoli la jàppee mbir moomu nee na Macky Sall mii ay xoom foor na lool Macky Sall mii ay xoom foor na lool teewul nag ma ngay dànkaafu Macky sàll ci biir yéenekaay bi du Vox Populi nee na Macky Sall ñàkk na élection yi ba noppi foo mu leer ko ci boppam lu mu koy xelal na génn réew mi ci biir yéenekaay bii di Vox Populi ne na moom noppi na sax ci jet privé bi ko jëlee Paris indi ko fii mu aal ko Macky Sall mun a caw dem ca biti waaye ca booba kaawu Benno Bokk Yaakaar ñoom it ñu ngi waaj bu baax a baax ña nga woon ca Louga loolu ñu yéenekaay bi nga xam ne moo di laa xamal tey jii Mohamed Boun Abdallah Dionne tête de liste ba nee na pétrole ba ñuy coow nii 2021 lañ koy commencé exploité te lépp dina jaar yoon ci biir yéenekaay bi di enquête premier ministre ne Linguère Louga moom macha allah ñoom wóor nañ ne dañ fay gañee ba tax yéenekaay bi la Tribune ne bennoo confiance la ñu ànd ak jamono yi ci biir yéenekaay bi l'Observateur Boun Abdallah Dionne di mokke opposition bi ne ñoom dañoo teqalikoo seen xel ñuy ratatati rek di waax rek may mënoon doy seeg ci biir yéenekaay bi di Vox Populi ne mbër yu ndaw ndawaan yii da leen war a arrêté. tekkiwuñ dara koo taxaw Sénégal ñoom ña nga woon ca Géejawaay yéen kat du quotidien ne gàkku ma ngay défier Aliou sàll waaye nag wane na yorin wu yées bu bon bu nguuruk Macky sàll yor li nga xam ne moo di wàllu mbënd bi ci naka ñu ne gàkku ak ñu ma ànd ak dañoo xuus si biir ndoxu taw bi na waa wax leen weddi gis bokku ci mu ngi nii waaye nag mbir am na muy lan yërël yéenekaay bi nga xam ne moo di le quotidien Louise Corr directrice des opérations bu banque mondial nee na tiitaru gu nguur Macky Sall di tiitaru ci TER ak Air Sénégal nañ ko teg ci suuf ndax jàpp ne ne loolu amul njariñ Sénégal fuite baccalauréat enquête ne ki sooke lépp jàpp nañ ko proviseur bu lycée kawoon ak ñaari agent yu office du bac lañ jàpp yéen a kàddu l'Observateur ne ni ñu defee rek toll nañ ci fukki nit ak juróom-ñeent. am na ci professeur am na ci président jury ak ay ñi liggéeyee ci biir office du bac jërë ngeen jëf si déglu ñu leen di rajo soo jëm seen site dakarmatin point com incha